Euh, c'est sur les décisions que l'on reconnaît les grands hommes mhm. bu problème amee il faut ñu jàngat ko jël solution fii nous sommes au Sénégal nous sommes dans un pays de droit mhm. dafa am yoo xam ne ak euh, ak yelleef euh, ci lañ war a dox mm. tey sa liberté fi mu fi mu fi mu fi mu fi mu yem foofu la bosu keneen commencé mhm. bu leen neexee ngeen bëre mën ngeen a dem ba combat bi jeex mais nag warta am jeexital yu yu yu yu métti wala yu bon. ci ci yeneen askan wi. Mhm. parce que ñoom ni ñuy bëree noonu la ñeneen di defee leneen. Mhm. te ñun ñëpp comme ni ma ko waxee bi may commencé ay sénégalais lañ. Mhm. donc ces décisions là il faut les appliquer. moi je pour que ces décisions là qu'on les applique parce que nag booy diriger mbooloo surtout mbooloo mu toll noonu. parce que xam nga le nombre ah te boo xoolee bon moyenne moyenne moyenne d'âge bi ay xale lañ donc on revient toujours sur les 70 pour cent. ba pare boo xoolee presque ay 5 pour cent ñoo ci ñoo ci la seen niveau jàng toll fenn fi. Mhm. donc ñu mel noonu faaw ngay wax ak ñoom. parce que débauche d'énergie bii nekk ñoom ils s'entraînent à longueur de journée. Mhm. donc il faut nga canaliser ko. su ko wax mënut a canaliser nag texte koy canaliser. Mhm. moo tax décision yooyu noonu il faut qu'on les applique et il faut que les gens soient rigoureux. parce que gis naa aussi ci euh, face à yi. Mhm. Euh, li koy arrêté à minuit. loolu c' très bien c' est des décisions yoo xam ne il faut qu'on nit ñi. Mhm. te sénégalais loo ko bu ci xasee tege ci raay rek après day adapté wu day dem. effectivement bañuñu ko bañuñu ko mais sénégalais dafa dafa dafa dafa day tàmm. Mhm. tàmm benn affaire di ko def di ko def di ba boo ko fi bëggee jëlee. mu mu bëgg koo def droit. alors que war sa demee noonu. il faut que les secteurs là soient organisés nous sommes dans un